war nañu ci buntu dëkk bi jafe-jafe yi nga xam ni at mu ne mu am fi te daaw ñun ñi ñëwoon nañ ci màggal gi dund nañu loolu war nañu yeneeni bunt wala wax nañu yeneen yoo xam ni itam saa yu tawee tam tombeek màggal màggal gi ren ji incha allah itam ci nawet lay tombeel jafe-jafe yu metti dina am xam nañu na mu demee woon daaw ba ñu ñëwee fekk nañ ci ñoom itam ñu am ay xalaat yuñ ci am kuréel yi nekk fii waaye état bi ci boppam ak ONAS am na ay pexe yoo xam ne tàmbali nañ ko ci ay projet ci yoo xam ni yii gëm naa ni bu ñu ci àndee ak nit ñu ko waxee ndax li mu laaj ci taxawaay ak yitte rek incha allah danañ ko ci am ci suñu wàllu bopp ndax suñu priorité la li tubaab di wax sa sur priorité maanaam bu amee lu gën a fort priorité maanaam loolu lañ koy def te ñu ngi ciy am yaakaar bu baax a baax dem nañuy tamit seeti yeneen i liggéey yoo xam ne mu ngi ci booru ngelamu boobu itam beneen solution la boo xam ne bu ñu coo bu yàlla dimbalee ba mu yegg mën naa indi saafara lu baree bari ci yeneen inondation yi loolu daal sëriñ bi li ma fi bëgg a wax ci mbir moom mooy inondation xëy na yàlla nattoon nañu ñu yegg si ci ñeenti weer laata nawet di jot dana jafe lool lépp sotti dana jafe lool lépp sotti waaye lépp lu mu laaj ci taxawaay ak Pastef ak jëf ju ñu war a def ngir sottal li mën a sotti ngir wàññi jafe-jafe ngir saafara incha allah dinañ ci yendu dinañ ci fanaan. ndoxum naan sëriñ bi li ko gënal ak li mu bëgg te xam nañ ni am na ci xam-xam bu wér mooy ñu def transfert do maanaam jëlee ji ndox mi fa ko waa Dakar di jëlee mu di lac de nga xam ne dafa branché ci fleuve Sénégal ñu fexe ba indi ko ba nga xam ne ndox dootul manqué benn yoon loolu nag def nañ ko priorité. laata ñoo toog mu ngi woon ci suñu projet bi ñu toogee dajale naa ñëpp ñu ci am xam-xam ñi ëpp xam-xam ci réew mi te liggéeyoon ci kanaal di Kayoor ak ci revitalisation vallée fossile ak kanaal di Bawol ñoom ñëpp dajale nañ leen ba waxtaan ak ñoom ba lépp luñ ci mës a def ci ay gëstu ak i xalaat indi nañ ko ba ñu ngi koy mooñaat ni leen dañu bëgg ci ni mu gën a gaawee ñu jëlee ndox mi indi ko ngir ndox mi wal ba de yegg Touba.